الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على خير البشر ومعلم الدهر رسول العدل ولسانية سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله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 اختيار كبس إبراهيم وليس بكبس الإبليس أقول بالله توفيق بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لهمها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم وكذلك سقرها لكم بتكبروا الله على ما هداكم وبشر المؤمنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أيها المسلمون هذه هي الأدهية ويليق جدا لمن كان يحب أن يدحي أن يختار أدهية إبراهيم وليس أدهية إبليس لأن الله سبحانه وتعالى لا يهمه الله ولا دم ولكن الذي يهمه التقوى الذي في القلوب معناه في الصدور لن ينال الله لهمها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم وروي ترمزي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النهر أحب لله من إحراق الدم من إحراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأصفارها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض قبل أن يقع على الأرض فتيبوا بها نفسا ويكره تركها مع القدرة عليها لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبسين أملحين أقرنين ضبهاهما بيده الشريف وسمى وكبر وواحد له ولأسرته وواحد لمن لم يضحي من أمته وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلم عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الكرام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 waaye ñu ngi julli ci sang bi mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko saxaabaam mboolem saxaaba yëpp ñu ngi leen di gërëm leen sant bu baax ngir ne ñoo jaay seen alal ak seen doole ak seen bakkan pour islaam bi taxaw ñu leen gërëm bu baax leen sant leen ñaanal jàmm di leen wax na tey suñu xutba gi tey ñu ngi ko teg ci tànn xari tabaski tànn xar pour tabaski ngir ne képp koo xam ne war nga tabaski war nga seet ban façon ngay xar nga war a tànn comme ni nga xamee ne sunu ibrahim yàlla moo ko tànnal xar tabaski ñun ñi tamit koo xam ne da nga war a tabaski war nga tànn tabaski boo xam ne dafay nuroo ak xare ma ibrahim waaye bu mu ak xare iblis maa ngay wax di ñaan yàlla ndimbal di wax ne bismillahi rrahmani rrahim yàlla mu ne lan yanaalu laahu luhumuha yàlla mu ne soxlawuma yàpp yàlla mu ne moom yàlla soxlawul yàpp wala dimaa'uha soxlawuma deret nga rey xar mu rëy deret ju bari soxlawuma ko moom yàlla yàlla mu ne soxlawul ko walakin yanaaluhu taqwa minkum yàlla mu ne xol la soxla yàlla mu soxla wu ma yàpp bu bari soxla bu ma dara ju bari waaye li ma soxla mooy xol bi nga xam ne mooy rey sama tabaski bon mbokk yi nañu tànn tabaski bu baax boo xam ne mat na tabaski waaye buñ tànn ne ñun ñoo gën a rëy le xar ci koñ bi amul njëriñ maa gën koñ bi amul mbokk yi ñu ngay wax di ñaan yàlla ndimbal di wax ne yàlla nee na lii moo tax ma tàggatal dimbale leen ngir mën a am xar boo xam ne da ci mën a màggal yàlla pour yàlla jubal leen waaye yàlla ne na yow Muhammad basril muhsinin yàlla mooy na nga kontaan loo ñi nga xam ne def lu baax ku def lu baax bégal ko ñu bëgg leen wax ne rek dañ bëgg ñëw ak yéen ci xutba gi tey ñu jéem a tànn xar boo xam ne dafay nuroo xarama Ibrahima waaye bu mu nuroo ak xarama Iblis. ban xar mooy xarim Ibrahim moy xar bo xamne amna am ben juróom xar bo amé juróom ben weer man tabaski waye xar bo xamne ne amut bëtam yàquwut noppam yàquwut du sox soox làppul màggetul xar bu lañ soxla waye xar bu bët ba bëna ba daga gën bi daga mu sox dafa lapa dafa màgget dedet mbok yi yàlla neena na nañ ut xar bo xamne xar bu mat tabaski la duñu ut bu man tabaski la bu ut xar bu reey reey ko liko yàlla mo liko etel moy xar bo xamne ka koy reey amna ngam yàlla ci xolam mbok yi amna hadith bi jigeene ko yu wax tarmit fii mu jël nañ ci suñu yaay Aysa bi hadith hadith xadis suñu yaay Aysa mune yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne maa amila aadamiyun amalan yawma nahri ahabu ilallahi min iraqi dam suñu yaay Aysa mu ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ne amul benn jëf boo xam ne moom la ñuy def ba si tabaski loo xam ne moo gën a foor tuur deret yonent Aysa ne na yonent bi nee na amul lenn loo xam ne moom la jullit def ci jëf yi jëfal ko yàlla lu gën a foor ba si naxari ba si rendi bi nga tuur deret bon yàlla ñu yàlla may ñu mën a am lu ñu tabaskee yàlla ñu yàlla mën a may xar yàlla ñu yàlla dimbale bañ te bañ nangu yërëmante suñ ne xar fi ñu ne tabaski jot na am na ñoo xam ne mooy seen mooy seen luuma jaay nañu lu bon jaay bu seer bu soor ala tattaqillah xanaa yow doo ragal yàlla def nañ ko ba nga xam ne am na yenn jaaykat yi day ut xar boo xam ne dinañ ko xiifa ñetti fan du lekk mais ko ñaari fan du lekk ñu dem defal ko lekk lekk bu neex ci moom mu jox ko mu lekk ci ak doole ba biir bi def nii nga jaay ko jaay bu seer ñaari fan mu dee lu tax dafa lekk lu ëpp waaye yow li la soxal mooy biir bi mu rëy nga mën koo jaay xaalis bu bari xanaa doo ragal yàlla xanaa doo ragal yàlla mbokk yi bon ay nee na yonent bi nee na amul benn jëf boo gën a xam ne mu gën a foor tuur deret bi ci bi ci tabaski bon yu Aysa nee na xaar boobu nga xam ne moom nga rey bés tabaski dana ñëw yomal xiyaam ak béjjéenam ya ak kawaram ga ak ta wexam ya yépp mu ànd ak moom ñëw Aysa nee na boo dee rey xar bi yonent bi nee na booy rey xar bi boo xool laalee paaka balaa dara ji ci àgg ci suuf sa sa sa sa sa jëf yi àgg na ci yàlla subhaana bon am na solo lool ku ko yàlla man loo nga nga rey fi nga rey xar bon Aysa nee na am na benn bés yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tabaski da ñaari xar ñaari xar yoo xam ne dañ weex dañ gudd dañ rafet ñu am béjjén mu rey leen ñoom ñaar ñëpp ci loxoom bu tedd ba subhaan sallallahu alayhi wa bi mu leen rendee mu ne xar bii de dama ko ray man muhammadun sallallahu alaihi wasallam pour man ak suma njabot bi ne dama ko ray kep ko xamne mun lu am tabaski ci suma xed bon tabaski jarul lepp jarul lepp tabaski nañ moytu lepp tabaski weer eh, julli bi passé ñu lay oo radio rajo bi fay sa bori jaruk yonte bi la bu yak ñun nak doyna war ba nga xamne amna am ñu bari ño xamne da ngay am ben xar jox ko sa jabar mooy tabaski yow yow doo tabaski yow borom kër doo tabaski borom kër moo war a rey xar yóbbuwaale jabara waaye am na ñoo xam ne dangay am xar yow jabar jabar mooy tabaski yow nga toog du noonu du noonu du noonu bon koo xam ne yow amuloo xar pour rey ko tabaski yonent bi sallallahu la reyaloon pour yow bu yàgg bon amul kenn koo xam ne. islam daf la forcé pour nga dem lépp pour nga rey xar déedéet lu amut jël nañ bi hadis ci ku ñu wax Umu Salma mu ne e, soo leen yónni mu ne yónni nee naa Umu Salma mu ne jabar yónni bi la bokkoon mu ne yónni bi nee naa koo xam ne da nga bugg a rey xar pour tabaski bu weeru tabaski taxawee bul dagg sa wey bul war sa bopp nga xaar ba bésu julli bi nga doo ko def ñu bàyyi ci xel bu baax tey eh, weer bi dog na tuuti weer baa ngi waaja dee léegi waaye ñu ne weer bi nga xam ne mooy weer tabaski bi bu taxawee koo xam ne danga nga bëgg a rey tabaski bul wat sa bopp bi bu dagg sa wey nga xaar bis julli bi nga doo ko def mbokk yi tabaski moomu ñeenti mbir la mën a nekk yonent bi nee naa tabaski dañ ko def ci juri kër yi xar la béy la nag la gëléem la ñu ne amuñ gëléem bon xar nag ak xaram nag ak béy koo xam ne mun nga bokkaate nag yéen juróom-ñaari nit mën bokk benn nag muy seen yéen juróom nit mën ngeen bokk benn nag muy tabaski waaye benn xar pour benn kër la yow borom kër yaa koy rey pour waa kër gi yëpp ak ak béy bon foofu la noonu la noonu la mel ni xar eh, eh, tabaski ñeenti mbir la mën a nekk mooy xar nag ak xar ak ak nag ak gëléem mbokk yi yàlla wax na ne yàlla wax na ne eh, tabaski moomu dafay nekk min bahimatil anaam bahimatil anaam moo juri kër yi julli ci biir kër yi yonent bi neen salaa du doy ci tabaski wala tey suuf fi fil udhiya tabaski du doy mukk lu mooy ak ñetti mbir yii e, mooy xar moo xam ne dafa wér xar moo xam ne am na juróom benn weer xar moo xam ne bëtam baax na xar moo xam ne nopp baax na xar moo xam ne gen bi daggul ngeen baal ma ci waxtu waxin bi bon noonu la mooy tabaski boobu nag góor la ak jigéen la ñoo ci am béy wu jigéen bu amee juróom-ñaar eh, eh, eh, benn at béy wu jigéen bu am benn at doon tabaski xar mu góor bu amee juróom-benn weer mën tabaski nag ñaari at gëléem juróomi at ñun amuñu gëléem. toujours dama dee wax toujours rek ne li nga xam ne amuñu ko jaruñ jaruñu sori duñ ci jarul wax dégg nga bon loolu mooy tabaski bokk na ci sart tabaski yonti wax na ko mu ne ñeent yi waxoon léegi yooyu nañ ci bàyyi xel bu baax ba nga xam ne nuñ ko nangu e, jur goo xam dafa làpp ba nga xam ne yax bi amul yuur du mën tabaski jur goo xam ne tànk dafa damm dafay soox soox bu leer nañ bu set du mën tabaski bon nañ ci bàyyi xel bu baax yonent bi nee na sallallahu alayhi wasallam bés si tabaski li ñuy njëkk def bés boobu mooy nañ buñ xëyee nañu oor koo xam ne nga bëgg a rey xar na nga xëy oor koo xam ne nga xar na nga xëy nga dem julli ji boo demee julli ba pare nga xaar ba imaam rey nga rey koo xam ne da nga rey sa xar balaa imaam a rey yow yàpp nga waaye amuloo tabaski koo xam ne nga rey xar balaa imaam di rey bon yow yàpp nga am waaye amuloo tabaski loolu taxoon ca jamono dañ daan ànd ak imaam imaam yóbbu xaram ba ca ca julleekaay ba bu jullee ba pare ñu jàppale ko mu rey su ko defee ñëpp dem rey loolu moo daan am bon mbokk yi eh, ñu bàyyi xel baax si loolu yonent bi nee na sallallahu alayhi wasallam koo xam ne na nga rey xar na ko xaaj ñetti xaaj xar mi nga rey man nga ko xaaj ñetti xaaj benn xaaj bi nga lekk nga lekk ko yaa sa waa kër benn bi nga saraxe ko benn bi nga denc bon ñetti xaaj la ñuy xaree xar boo ko reyee mën nga ko xaaj ñetti xaaj benn bi nga lekk yaag sa njaboot benn bi nga denc waaye benn bi nga saraxe waaye doo ci jaay dara si ci eh, eh, yàpp tabaski mën nga jaay benn lenn de mooy der bi soo jaayee soo amee tabaski mën nga jaay der bi soo ko jaayee xaalis boobu nga saraxe ko kon naa dégg nga li ma wax der bi rek nga mën a jaay te boo ko jaayee da nga saraxe xaalis bu doo ko lekk bon yàpp tabaski noonu la demee mbokk yi bon boo xam ne koo xam ne danga am xar war koo rey nanga dem yow sa bopp nga reyee ko sa bopp yow sa bopp na ko rey boo dee góor na nga sa bopp boo dee jigéen na nga ko reyal sa bopp ndem ndem mën nga koo rey bon koo xam ne am nga xar yow sa bopp na nga ko reyal sa bopp nga rendi ko boo dee góor na nga ko rendi boo dee jigéen na nga ko rendi ndem ñi nga ko rendi bu fekkee mun loo rendi buñ ko rendi na ko te na ko fekkee buñ ko rey na ko fekkee ndee mun loo rendi bu dee jigéen oo ko mu ñëw mu ren ñu rendi ko ci kanamam ngir ne sunu yonenti yàlla muhammad sallallahu salam masla bi am benn bés dafa waxoon fatima ne ko fi yaa fatima kaay nga fekkee ñu rey sax ñu reyal sa xar bi ngir ne suñ koy rendi rek mbooleem bakkar ba defoon ci at bu dafay jeex ba nañ ci góorgóorlu ba nga xam ne képp kenn ci ñun yow na nga reyal sa bopp sa xar bi sa xar na ko reyal sa bopp soo ko mënta rey nga ko la koy reyal suñ koy rey na nga taxaw ba noonu la mbir mee foofu mbokk yi te boo koy rey na wax ne bismillahi allahu akbar loolu mooy wax bi ñun na dañ dee wax ne ñeneen ñi dañoo wax ne lu kenn xamut lañuy wax rabbana تقبل منا انك انت السميع العليم لولو لا يكورين لول جاي واخ وا ني ني دي واخ ني اه نكاي واخي صاح ليغا خا مولا دين سانتاي موي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واي امنا يينين يخ وي واخ يو خا ني صاح كين ديكو سي بولو سي مبولو يينين واخ يو خا كين خامكو اسلام دا مسانتاي موي بو ري واخال ني الله بسم الله الله اكبر allahuma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim soo ko mënee ci arab baax na soo ko mënutee nga wax ko ci olof sa làkk bi nga mun làkk bi nga mun nga wax ko foofu nekk bi nga mun nga ko foofu mooy bismillahi tur yàlla ree lii allahu akbar yàlla màgg na yàlla moo gën a màgg nga wax ne allahuma taqabal minna yow suma borom maa ngi lay ñaan nga nangu ma suma tabaski bii wax ko sa làkk bi nga mun mu jeex mbokk yi nañ ci góorgóorlu bu baax ba nga xam ne eh, lépp loo xam ne yàlla santaane ko ci xar mii nañ ko jéem a ut waaye buñ nangu mukk di ut xar moo xam ne ñu ngay ut xar moo xam ne dañuy wax ne ci koñ bi maa fi gën rey xar yow amuloo xar Ibrahima de xar Iblis nga am amul benn njëriñ xar mi ngay ut na nga ko ut te yàlla tax waaye ñeneen comme suma maas yi bu tax su jotee nga ut xar eew ci koñ bi sa xale yi jéego ci mbedd bi di wër. di wër ak moom di wane ne man man ma gën reele xar ci koñ bi amul njëriñ yàlla bëggul loolu yàlla bëggul wone yàlla bëggul loolu bon boy rey xar na nga fexe ba xar bi ngay rey na mat xar bi ngay rey na wër xar bi ngay rey na wër xar bi ngay rey na wër loolu mooy soxla si allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك من مجيد اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم إن الله وملائكته يصلون النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلام تسليم سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين